cër bañ maa tooñe uh-huh. ndax dund gu jeexul la xaj na ci mu ndax dëgg la parce que sin fàllu la xale yi ñu ngi fekk koo xamee ne mi ngi dem ñu koy tooñ mu soli sakat fekk mu leen njëkk bunti ajjana moo leen njëkk bunti ajjana gën leen a gën moo tax nit nit gone bii gàtt fan foofu lay gàtt fan nit nag bii gàtt fan foofu lay gàtt fan fekk koo xamee ne yow da leer leen nga xam ne kii dofu dof yaay gën a xam ne kii dofu lu dof nga bëgg ko def dof nga def ko dof doo ko def sax maam sax mag mokk mu wéré di ci kër ga di fa jëlante bi ñëw déedéet da ngay jooy bii dem wala nga ko ba dem toogal kon yéen ni ngeen di def rafetul waaye xale kenn mën ci moom dara xale yi wérété yi tooñ sotti kenn du ko avancé toujours dañuy dee baa ñuy lafañ baa ñuy am ni baa ñuy baa ñuy làgge dara di dal waaye gone gu dul tooñ gudd fan gaaw a tekki barka Seexul Xadim léegi ñi tekk ñi mag ñi tekk ñëpp ña gone gu gone gone gu ña nekk gone goo xam ne daaw am jël am yar yar lu la mel da la koy xëy barka Seexul Xadim yàgg nañ leen koy wax seen i waajur toog barka Seexul ba ci koy koy koy ba ci koy defandool politique élection bu waree falu rek yàlla na yàlla yàlla rek moo ko mën a fal bon coow lii aussi aussi jàppal ni coow lii day bari rek waaye jëmm joo gis mu toog ak yow rek jàppal ni kii war ki a falu yàlla rek la du kenn du lenn suñu borom mooy fal mooy fale barke Seydina Muhammad uus bul mer Macky Sall bul mer Moustapha Niass bul mer bu kenn mer barke Cheikhul Khadim lu leen yàlla boolee la moon ñu mën nañ ko am amuñu ko kon sant leen yàlla yéen ko kon déggoo leen nekk benn déggoo leen nekk benn déggoo leen nekk benn toogalandoo toogandoo leen toogandoo leen réunion ngeen gën a nekk benn ndax li ngeen da ngeen daa toog doon benn booba di booba ñu fekkewuñu ko yéen Ousmane Sonko yéen Macky Sall yéen ñëpp bu ngeen daa toog nekk benn ñu fekkewuñu ko kon yàlla da leen a boole benn kon nag man li ma ci man a wax maanaam bugguma ci wax sax lii lépp maanaam nag waaye lu baax boo koy wax ay nit lañ koy jëriñoo jàmm jooy am ñu mën ko yokk am jàmm rek laa leen yéene barke Seydina Muhammad kenn ku ci ne daal bul xeexal sa bu def dara loo mën a am yàlla du la ko xañ lii sëw sa baa ngaa dee di nga dee moom barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku mën ci doon